maa ngi tudd Mouhamed Zouber dëkk rue 5 angle 6 boucher le secrétaire général du marché Cheikh Madické. ban xalaat nga am ci góor jigéen. bon man euh, góor jigéen moom xalaat bi ma ci am mooy benn xalaat rek la. mooy góor jigéen rey comme yàlla moo ne góor jigéen dañu ko war a rey nañu ko rey buñ ko daganalee. mooy li gën nga xam ni képp kuy góor jigéen bu doxee ñu jàpp ko rey ko ndax loolu mooy dëgg. ñi ma dégg nag ñuy wax nag naan média bi bon assemblée nationale nangu ñu mbirum góor jigéen ñi kaka ca nanguwul góor jigéen nga ñoom ñëpp nag man maa ngi amee Ahmed Zoubeir dëkk rue 5 angle 6 man maa ko kan nanguwul ni doo doo euh, criminaliser góor jigéen góor jigéen nga parce que góor jigéen yéen ni financé parce que ñoom ci loolu la ñuy dund te ñun ay jullit lañu ay doomu jullit lañu nekk sénégalais di ay jullit 100 pour cent jëlee ko ci ndey ak baay ki maamaati maam kon donc man su ma déggee ñu naan góor jigéen ñi dañ leen war a may espace wala dañ war a may place fii kooku du yoon. waaw mon frère maa ngi lay wax ne dalal ak jàmm fii ci Médina gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi dañuy rafetlu Sénégal seen liggéey bu neex bu ngeen di def nii parce que à nos jours lii la société bi soxla parce que société bi dafa jaxasoo trop société bi qu'on le dise ou pas dafa jaxasoo trop yaakaar naa dëkku Serigne Touba dëkku Baye Niass dëkku maam Alaaji Malick dëkku Limaamu Laay Bukkunta Njaasaan mag yu baax yi valeur yooyu ñu am loolu war ñu nangu sax muy jëm kaw c'est honteux war ñu nangu muy jëm kaw ñun dañu am ay valeur loolu muy état ak ku mu mënti doon war ñu xaar loolu ndax yàlla ba muy sàkk góor di sàkk jigéen dafa sàkk jigéen pour góor sàkk góor pour jigéen donc góor a góor mënuñu def jigéen ak jigéen mënuñu def tubaab yi ñoom seen dund seen dund la ñun nu soom au Sénégal nekk ay jullit Sénégal am ay réalité Afrique am ay réalité ñun jullit yi ñu am ay réalité yoo xamante ne fii lañ ko fekk góor jigéen ku koy dooleel yow kasara nga quoi nga baal ma ci kàddu gi parce que ñun xamuñu loolu donc loolu du projet de loi boo xam te sax dañ koy rejeté wala yooyu du fi dox fii ñun ay jullit lañu góor yi ak jigéen ñi ñoo mën a ànd mais góor ak góor waruñu ànd te képp ku leen ciy dooleel képp ku leen ciy jàppale yow ak ñoom yéen a yem loolu ñun peuple bi laa lay bi laa ni du ñu nangu loolu du dox fii Sénégal du fii xaw ma feneen mais ñun duñ fi nangu góor jigéen du am parce que correspondre ak suñu valeur lislaam du ko sib kon lu l'islam sib baaxul grand dañu waxante dëgg waaw suñu xalaat ci góor jigéen yi loolu moom ñu ko moom wax dëgg fa yàlla parce que fii moom waaw dëkk layit la dëkk bi moom ñëpp ko bokk mais tamit am na loo xam ne dafa jaaru tamit gaa yi dañu war a déglu waxu kilifa diine ak kilifa aada yi ñu xam ne ñoom ñoo lañ fi am waa kër sëñ Touba waa kër Limaamu waa kër Baye ñun amuñu ñu ñoom ñoom la ñuy tiitaroo fu ñu ne kon am na ñoo xam ne ñoom suñu nee waaw waaw la suñu nee déet loolu déet la ñun moom ay taalibe lañ ndigal rek la ñuy jëfee moom balaa ñu doon xam ne ndigal rek la ñuy jëfee sëñ Mountakha ne woon na taalibe yëpp mëkk kaani suba di nga dem marché di ndugg ñu ne la kaani amu fi ndax Baay Faal yee fi jaar ndax ndigal rek lañuy ñuy jëfe sama xalaat mooy di ko di rafetlu ànd sàmm jikko yi seen liggéey seen ànd sàmm jikko yi maa ngi rafet lu bu baax seen seen jikko ndax ñoom def nañ seen devoir dem nañ déposer ay pétition ci marabu yi ba ku ci nekk jox la seen accord ñoom def nañ seen liggéey tey bu ñu yóbbu ko assemblée assemblée am fu mu ko teg kon assemblée nationale war nañ koo xoolaat war nañoo xoolaat assemblée bu baax. waaw rey rek mooy yoonu góor jigéen góor jigéen rey rek su ma amoon dolli si dëkk bi wala suma baat góor jigéen benn bu ñu jàpp ni lay rey jigéen ji góor góorlu bu la jàppee rey la ku yàq biir bu ñu la jàppee rendi la ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey nit ñu rey la kon jàmm dina am ci Sénégal bu fekkee nee nañu duñ ko wate ñun ñooy jël saabu suñu responsabilité ba pare fu ñu gis góor jigéen rek jéem a ñuy defanteeg moom ñu si am jël. xolaat bi mooy ñoom xam nga askan wi lañ fi nekkal te askan wi ñoom lu luñ décidé te bëgg ko ñoom loolu ci lañ war a taxaw léegi askan wu tey jii bu waxee ne tey jii projet boobu war nañ koo xolaat pour gën koo criminaliser assemblée nationale war na le minimum mooy mu jéem ko voté xool ñi d' accord ak ñu d' accordut su ko defee ñu jéem a situer sénégalais yi ëllëg ci biir bu ñu demee bay tànn ñu xool kan la ñuy tànn ak ban député la ñuy waxal. donc euh, pour yow assemblée nationale li nga xam te ni rejeté na ko démb muy projet de loi bi kon yow àndaloo ci. mais loolu Sénégal amul ku ciy ànd. ñoom li nga xam ne ñun peuple bi gannaaw yàlla yonante bi ñu ñoo leen fiy teg parce que tey bu ñu soxlaa dañuy génn ci peuple bi dañuy génn ci peuple peuple bi jàppale leen donc en retour am na respect moom tam dañ ko mérité loolu loolu amul warul woon sax waruñu woon nangu sax muy demee nii Sénégal foog ñu dugal loolu ci boppu. gars yi ñu nekkee ci kaw ñu xam loolu ñun ay jullit lañu jullit day def fu jullit góor jigéen duñ ko fi nangu fii. waaw même même tam suñu mbokk chrétien itam nanguwuñ ko. waaw ñoom ndeysaan ñoom dañu discipliné te merci nga souligner ma loolu parce que ñoom aussi ñu discipliné lañ parce que li tax ma respecté leen mooy chrétiens yi boo xoolee ndeysaan ñoom lu ñu xew xewle rek dañuy ñëw taxaw comme ñun aussi bu ñu xewlee dara duñ leen di taxaw loolu mooy Sénégal Sénégal pays la. chrétiens yi dañ fa am walla julli ci am fi wàll ku nekk nag respecté sa morom te yàqaloo sa morom dara. kon nanguwul ni doo doo euh, criminaliser góor jigéen góor jigéen nga. parce que góor jigéen yéen ni financé parce que ñoom ci loolu la ñuy dund te ñun ay jullit lañu. ay doomu jullit lañu nekk sénégalais di ay jullit cent pour cent jëlee ko ci ndey ak baay ki maamaati maam kon donc man su ma déggee ñu naan góor jigéen yi dañ war a may espace wala dañ leen war a may place fii kooku yoon ñun nag ñun ñoo jël suñu responsabilité ñu l'essence de xam na. ñu daganal kaak ñu ba ñu criminal si ko criminal si ñoo yem ñun daal foo ñu gis góor jigéen moom na leen leer ni moom mooy caaf xam na dinañ la duma ba nga dee dinañ la si faay ba yàlla waaye dinañ tàllal sa ndigg door la ba nga dee nag te nag jaral ma sax ñu rey la man laa da fu ma gis góor jigéen man xanaa ma bañ ko teg bët moom man bu ñu ma nee kaay jite ba ñëw bu dee ren sax ñeme naa man amet ñeme parce que góor jigéen duñ ko duñ ko ñu bëgg nag ñu même catholique yi sax nanguwuñu góor jigéen même catholique yi nanguwuñu góor jigéen ay musulman bëgg a nangu góor jigéen te ñan ñu wote assemblée nationale ay musulman taxaw naan non non non ko dañ dañ ko fiy daganal duñ ko criminaliser pour lan te ñoo ñeen ay musulman duñu ay julit ñoo ñëpp ay naafekk lañu man maa ne man képp koo xam ne nangu woo ñu criminaliser góor jigéen fekk nga seytaane nga dëmb nga nooxóor nga te buñ la jàppoon lañ la sufaay non loolu waruñu ko bañ parce que ñoom suñ ñëwee boo koy bañ de kon ça veut dire que ñoom am na luy ñuul ci soow parce que maanaam maanaam. maanaam kon ñoom ñooy protéger góor jigéen yi moo tax kon ñu koy bañ su fekkoon ñoom protéger ñu góor jigéen yi kon duñ nangu sax muy yegg foofu bañ koy yegg si wii ak noo ñu koy bañ ñun nag ñooñu lañ fi nekkal kilifa diine bu buñ nee lii rek loolu la am waratul am leneen bay am assemblée bay am ay vote sax di si am. maanaam ñoom dañu wax ni am na loi bu fi nekkoon boo xam ni euh, kuñ ci jàpp mbiru góor jigéen am na maanaam ci ci ci wàllu pénal am na loo xam ne benn benn daan. am nañu benn daan bu ñu lay daan léegi nag euh, waa ànd sàmm jikko yi dañu wax ni daan bu ñu lay daan dafa ndaw dañu bëgg léegi ñu criminaliser ko maanaam ñu yemale góor jigéen ak koray nit loolu ban xalaat nga ci am loolu dama koy rafetlu bu baax a baax a baax góor jigéen fu ñu ko jàppee foofu lañ ko war a gasee rendi ko go ko waruñu ko sax di ko criminaliser muy tëdd ay 10 ans di génnaat dañ ko war a jàpp rek rey ko mu jeex suñ ko defoon ñaar ñett wane ko tele si bu wane ko góor jigéen jeex bi tax léegi nag bureau assemblée nationale bañ ci criminalisation boobu yow ban appel nga leen di lancer ñoom waa bureau bi. li ma leen di wax mooy maanaam ñu ñu gën a xoolaat seen bopp rek. gën a taxaw parce que affaire booy xool du Sénégal kese ñoom am na ñu leen jàppale. am na ay sax yenn documentaire yoo xam ne boo ko seetaanee bu baax nga xool ci net bu baax da gis ne am na député yoo xamante ni dañuy liggéey ak ay lobby yoo xamante ni international la ñoo ñoo leen di dooleel affaire bi du Sénégal kese bitim réew da cee rax. ñun nag suñ député yi ñoo war a jël seen responsabilité xam na fii dëkkub sëñ Bambala ak Alaaji malik ak Limaamu Laay ak bay ñas te ñooñu bu ñu demee ba jox ay pétition pour ñu criminaliser ko kon assemblée na def liggéeyam nañ voté loi bi affaire doon loo xam ne dañ koy jël rek technique ci suuf liñ yor rek doy nañu liñ yor nii buñ ko géré am gérance bu baax géré ko ni ñu ko war a géré duñ dem di tàllal ñooñu ñu xamante ne dañuy dimbale dañuy tegal ay conditions ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura loolu ñuy dimbalee nag ñoom nañ ko téye te bàyyi ñun ñu jéem a géreel suñ bopp Afrique ñoom li ñu bëgg a daganal seen réew ñu daganal ko fa ñun li ñu bëgg a gérer ñu bàyyi ñu géreel suñ bopp kenn bañ ñoo imposer dara waaw. est-ce que est-ce que li nga xam te nii euh, am na ko ku fi waxoon euh, comme euh, Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. mu ni projet de loi bi bu ñu ko accepté. Mm-hmm. dëkk européen ñu ci bëri dootuñ dañuy téye seen financement. Mm-hmm. gratuitement posé une très bonne question moom du ma tudd turam nag par respect mais moom. dafa nekk comme te ne buy wax nit ñi dañ koy déglu lu dëgg donc am na kàddu yoo xamante ne waroon na ko rusa wax en tant que jullit mel nii dafa fàtte yàlla grand fii lu dul yàlla rek neen la yàllaa fi ne te koo yaakaar ku ne yàlla la yaakaar un très grand monsieur comme Cheikh mu Seck moom yaakaar naa buy nekk saa su ne dafa war a nekk ci côté peuple bi yooyu du kàddoom mu xam ko mu ñàkk ko xam du kàddoom waxu ko waxu ko pour euh, pour tuumaal kenn mais dafa dafa ni. waaw bu ñu ko fi voté. waaw bu ñu ko fi voté. waaw est ce que comme tubaab yi dañuy téye seen loxo ci euh, koom gi daan dugg Sénégal. wallaahi grand yaa ngi may sunu waxtaan dafa neex parce que dama lay dégg question yu nice nga may posé nii mais dama la ne ragal yëpp yàlla la fi yàlla moo fi ne financement ak ñàkk financement yàlla moo fi ne. donc genre genre idée yooyu buñ ko dugg buñ ko buñ ko jéem a impacté. ci peuple bi du dox. autrement di yow li nga bëgg wax léegi mooy. ñun ñun sénégalais yi bëgguñu sax financement góor jigéen. non grand ndeysaan ñun ay julli lañu lu takk ci góor jigéen lu takk ci xeet boobu bu mu jege jullit axan ku leen di promouvoir ak ku leen di promouvoir ku ne ak ko mënt doon yow moom tu n'as pas mon respect quoi parce que yàlla ba muy sàkk góor. daf ko sàkk pour jigéen ba muy sàkk jigéen sàkk leen pour góor est-ce que comprendre nga. donc léegi yow léegi yow ban ban message ngay lancé euh, euh, waa bureau assemblée nationale ak ak député yëpp nga xam ni ñoom ñoo ñoo suñu représentant foofu. waaw erreur nañu bu fekkee dañu rejeté loolu du lu ñu war a rejeté parce que nous sommes au Sénégal fii yàlla rek moo fi ne comme ni mu la ko waxee tubaab yi yoruñu sunu dund. loolu foog gars yi ñu dugal ko ci boppu nit ñi. ñun am nañ lu ne fii Sénégal am nañ lu ne suuf bi baax na ñu ngi ak zircon ñu ngekk yeneen ak yeneen yoo te pour ne pas citer ñu ngi ay valeurs yoo xam te ne mu ngi fii ci réew mi du dëgg donc ay affaire financement ak ay européen ak yooyu yëpp garaawul mais problème bi mooy diine diine rek la mën a doon diine amul lu ko gën a féete kaw affaire yi dañ ko jël teg ko ci yoon assemblée nationale ñu xam ne ñun ñun ñoo leen fa teg foofu ñu ne donc ñun dañu war a dox ñoom ci lu ñu neex par force dañu war a dox ci li nga xamante ne moom la peuple bi bëgg ñun ay jullit lañu yooyu war ñu ko sax rejeté muy jëm kaw. mbiru góor jigéen du dox Sénégal. et maa ngi leen di félicité ah parce que genre débat yi la peuple bi soxla. Sénégal yi a ngi def liggéey bu rafet. maa ngi nuyu sama cameraman di la félicité davantage di leen ñaanal tele bi fu mu bëgg a yegg. yàlla na fa sunu borom yeggale darajay Seydina Mohamed kan bañ kenn manqué vraiment kontaan naa trop. merci beaucoup Fada oui on est ensemble merci beaucoup jaajëf grande